mbokki internet yi seetaan NGTV Sénégal nuyu nañ leen ziar leen bu baax a baax a baax di rafetlu ànd beek ñun di leen ñaanal jàmm di sàkku ñaan ci yéen bu baax a baax a baax yow mii di seetaan suñu vidéo bu fekkee abonné go ñu ngi lay ñaan nga abonné ci chaîne bi activé cloche de notification bi ndax vidéo bu ñu dugal nga mën ko gaaw jot di leen ñaanal ci at mu bees mi nga xamante ni dugg nañ ci muy 2023 ñuy ñaanal euh, ñëpp atum jàmm atum xéewal atum naataange di ko ñaanal képp koo xamante ni yaa ngi seetaan chaîne bi di NGTV Sénégal di leen baalu àq eh, waaye tamit di leen baal di ñaan yàlla yàlla suñu borom boole ñu baal eh, defal ñu ñun ñëpp ay xéwal yu saawan baawan sàmmal ñu suñu réew mi eh, di Sénégal waaw musal ñu ci fitna comme ni muy amee ci yeneen réew yi jëmm ñu nag waaye yàlla suñu borom daal ñu ngi lay ñaan lépp li nga xamante ni ñaawteef la yuy xew daal yàlla yàlla suñu borom musal ñu ci rawatina at mu bees mi nga xam ne dugg nañ ci ñuy ñaan yàlla suñu borom defal ñu ko muy atum jàmm atum xéwal atum naataange yàlla sañ na ko mën na ko yàlla na yàlla def ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa tey nag euh, première janvier premier janvier 2023 muy bis bi nga xam ne moo njëkk ci at mi 2023 làmb ju rëy nar am fële ci arène nationale nar a dox ci diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy ñaar 2 mbokk yi làmb ju rëy moo nar am foofu waaye tamit ñu waxaat comme li waxoon ci coupe du monde bi rek nan ñu moytu sëriñ nan ñu bàyyi yi fii sëriñ yi maama yi naan di way daan ak gis naa defet beeg nii lay daanu ne la lay daanu nan ñu ci dimbali képp ko ci mënoon dara defal ko sa bopp kon ñoom ñii di wax kenn xamu ci dara Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang ñoom ñooy bëre ki nga xamante ni moo war a jël ndam li moom yàlla suñu borom xam na ko kon nag yàlla na ko yàlla def ñu bëre ko ci jàmm incha allah ñëpp ñibbi si jàmm bañ a am violence kenn bañ a gaañu kenn bañ a yàqule oto da xam nga ne yaa làmb moom la noo weex dungu làmb ja tas na agressé nañ diw agressé nañ agressé nañ agressé nañ moom moog làmb ñoo baaxoo waaye nag yàlla na yàlla musal ci làmb ji waaye nag ci mu bañ am ci làmb ji waaye nag mbokk ñu fàttali làmbi Gaston Gaston moom ku xam làmbam xam ni moom lambam sécurité bi day doy sëkk waaw Gaston moom kuy dem ci làmb ama bépp bi dem ci làmb Gaston moom jërul ngay tiit ca xam ni moom jàmm ak salaam rek ngay am ndax dinañ jël wàllum sécurité mi ba mu doy sëkk foofu ca làmb ja stade ba li wër stade ba avant làmb ji après làmb ji ak pendant làmb ji kon nag bépp amateur bi dem làmb Gaston moom na sax xel daal ci wàllum sécurité que moom Gaston moom dina jël ay mesure am bu baax a baax a baax moom sax ñi ngi doon jot ay xibaar que moom dafa amoon jafe-jafe ci wér-gu-yaramam ñuy ñaan yàlla na yàlla suñu borom fëgg boppam euh, yëkkati ko ba mu delluwaat ci ay activité am ndax moom dafa yàgg ak làmb ténor yi ngay dégg fi tey ñu téye làmb ji ñoom ñëpp ci loxo Gaston nu jaar Gaston moo leen jël doo leen fay ay cinq cent mille ba tey ñoom ñi ñuy fayee ku ci nekk ay millions ñoom ténor yi macha allah kon Gaston dañ koy ñaanal wér makkan nag mi ngi fi doom ji waaw makkan mi ngi fi doom ji mi ngi taxaw lépp waaw mi ngi taxaw comme ni ko baam daan defee mi ngi koy defee noonu kon daal Père Gaston ñi ngi lay ñaanal nga jógaat ba ñëwaat say activité yow yaag làmb da ngeen a yàgg yaag mbëri da ngeen a yàgg kon Gaston yow làmb ji amul sa fay ñi ngi lay ñaanal nga wér ak jàmm tey nag làmb ji mag moo nar am muy diggante Balla Gaye numéro 2 ak Boy Niang numéro 2 Balla Gaye 2 le lion de Guédiawaye Boy Niang bi nga xamante ni moom it comme ni ñu koy dàkkantale déemu doomu dégol ji booy Niang borom Pikine bu jogee moom it Pikine yëpp jog nekk ci ginnaawam tey jii moom moo nar a daje ak kii di Balla gay 2 la lion de Guédiawaye ñoom ñaar nag ku ci nekk def nga palmarès bu riis a riis waaw ku ci nekk def nga palmarès bu riis riis dañ ko njëkkee ak kii di Balla Gaye numéro 2 Balla Gaye 2 mi ngi euh, gane àdduna le 4 décembre 1986 kon moom jamono ji bala gay 2 am na lu toll ci 36 ans euh, Balla Gaye 2 turam dëgg Omar Sakho la Euh, mi ngi dugg ci làmb nag en 2005 comme ni mu débuté comme mi ngi débuté noo ak ñenn ci ay moromam yu bëree bëri ku ci mel ni Modou Lo ak yeneen i mbër moom nag dégg na daal roi des arènes 2012 euh, ginnaaw bi nga xamante ni Yaxya Jóob Yékini yàgg na ci làmb ji lool moom Balla Gaye moom mi moo ko daan Balla Gaye mi ngi am na toll ci 21 victoire Samba Lawbe Balla Gaye 2 moo daan kii di Samba Lawbe naka noonu tam Balla Gaye moom moo daan kii di Dame Kandji Balla Gaye 2 daan na Papa Sow Balla Gaye 2 daan na Boulon Balla Gaye 2 Maam Góor Diouf Balla Gaye 2 daan na Saalum Saalum Balla Gaye 2 daan na Bac Seras Balla Gaye 2 daan na Sey Balla Gaye 2 tamit Kolifay Balla Gaye 2 usmaan na bala Diop Balla Gaye 2 bala na Issa Pouy Balla Gaye 2 daan na Mbaye Diouf Balla Gaye Junior yàlla yàlla yërëm ko Balla Gaye 2 daan na Moustapha Gueye Tigre de Fass Balla Gaye 2 daan na Modou Lo le Roc de Parcelles Assainies waaye tamit Balla Gaye 2 daan na kii di Tyson naka noonu tamit euh, Balla Gaye 2 daan na Yékini bi nga xam ne moom fi nekkoon roi des arènes yeexee jub Yékini Balla Gaye 2 daan na ko waaye tamit euh, daan na Tapha daan tamit Gris Bordeaux waaye daanaat tamit Modou Lo ndax bala Gaye ñaari yoon la daan ki nga xamante ni mooy Modou xarañ Lo Balla Gaye 2 nag moom mi nga am toll ci cinq défaites Eumeu Sène moo ko daan ñaari yoon Bombardier daan ko ñaari yoon Issa Pouye daan ko benn yoon kon euh, bala Gaye am na lu toll ci juróomi defet Boy Niang mi mu war a bëreel tey nag moom am na lu toll ci ñeenti defet waaye ñu ñëw ak yéen ci palmarèsu Boy Niang waaye palmarèsu Balla Gaye moom euh, nii la tëddee nekk palmarès bu riseris moom la Lion de Guédiawaye la Fils de Double moom Balla Gaye de palmarès am moo nekk noonu Boy Niang 2 douze victoire am yi nii la tëddee Boy Niang moom moo daan kii di Modou Diouf en 2008 booy Niang 2 daan na tamit Brise de Mer le 28 février 2009 Boy Niang 2 daan na Akon le 1er mai 2009 naka noon tam moom booy Niang 2 daan na Mbis le 21 juin 2009 naka noonu tam moom booy ñaa daan na Brise de Mer le 20 fe le vingt décembre 2009 Boy Niang 2 daan na Pape Sène le 24 juillet 2010 naka noon tam moom Boy ñaa daan na Dolf le 10 avril 2011 daan tamit Sa Kajoor 2 dëkk foofu ci Géejawaay le 2 juillet 2011 daan Double Less 2 dëkk foofu ca Géejawaay euh, daan Double Less 2 dëkk foofu ca Géejawaay le 9 avril 2012 daan tamit Baye Mandione le 23 février 2014 Boy Niang numéro 2 daan Garga Mbossé le 13 mars 2016 Boy Niang 2 tamit moom moo daan kii di Gouye Gui moom it nekk écurie Mor Fadam dëkk foofu ca Géejawaay Boy Niang 2 daan ko le 5 mars 2017 naka noonu tam moom moo daan rakku Sa Thiès bi mu war a rakku Balla bi mu war a bëreel tey di Sa Thiès Boy Niang 2 moo ko daan kon Boy Niang 2 mi ngi am 4 défaites ama neex moo ko daan ak sos ama neex moo ko daan le 27 février 2011 sos daan ko le 8 juillet 2012 naka noonu tam Tafatine daan ko Lac de Guiers numéro daan ko kon Boy Niang ay defetam am loolu la ñeenti défaites yooyu la am Balla Gaye am dool juróomi defet muy làmb joo xam ne nag xale ak mag la Boy Niang Balla Gaye moo ko féete mag moo ko njëkk ci làmb Boy Niang dafa war a dem ci kaw. bëre ji ak ñeneen i ganaar yi nga xam ñoo ne si kaw ginnaaw bu mu falaxee kii di Balla Gaye 2 Boy Niang loolu mooy yéeneem waaye Balla gay moom nanguwul loolu ndax nee na ko booy bi doo fi jaar fii du man du ma sa ñeexu ñebe kon nag fii doo fi jaar Balla Gaye 2 loolu la wax Boy Niang kon daal fii ci mi si simili néew rek loolu dinañ si xam dara ki nga xamante ni moo di Balla Gaye 2 gagné mooy tax mu gën a li nga xamante ni mooy place am euh, ki nga xamante ni mooy Boy Niang tamit gagné moom mooy tax mu àgg fa mu teg bëtam mooy roi des arènes bi nga xam ni war na koo yóbbul waa Pikine booy Niang moom euh, loolu mooy yéeneem kon daal ñoom ñaar ñëpp combat bi combat bu am importance la ci ñoom ñoom ñaar ñëpp liggéey nañu nag ñoom ñaar ñëpp ànd nañu ak seen mbokk kon daal bi su tey bi bi su dëggale ci moom bi su dëggale ci ñoom ñaar ñëpp ñu ñaan rek ñu bale ko ci fair play ki nga xamante ni euh, moom la yàlla may ndam keneen ki tamit moom démérité wul ñoom ñaar ñëpp ay champion lan ku nekk war naa mën a daan sa morom ñuy wax daal que le meilleur gagne incha allah yàlla nañu ko bëri si jàmm ak salaam jaa ngeen jëf ci ànd ak ngeen ànd ak NDC TV Sénégal woo leen di abonné wu fii jaa ngeen jëf